salaamaaleykum euh, maa ngi tudd Amadou Télémac Ndiaye euh, bokk club vélo passion euh, tey nag dañuy daje comme comme on a l'habitude de faire tous les samedis dañuy daje club dans beaucoup de clubs différents ñu ci nekk ñi ngay gis nii ñëpp ay club seen club la ñu bokk am na ñu bokk CDD am na ñu bokk Kayma am na ñu bokk vélo passion mais dañuy daje fii nii pour génn hors de Dakar Euh, le plus souvent dañuy dem ay Thiès Dakar Thiès Thiès Dakar Thiès wala dakaar Mbour Dakar wala ay Bayaax wala ñu dem Saly ñëwaat ainsi de suite donc euh, tey euh, sunu génn bi ñu ngi war a dem Tivaouane donc dañuy def cent quatre vingt cent quatre vingt huit kilomètres la dañuy jóge fii escale Thiès pour une pause de quinze minutes continuer ba Tivaouane retour on fait la même chose on s'arrête à Thiès donc pour arriver à Dakar. donc euh, loolu la ñuy faral di def tous les tous les samedis quoi. waa en réalité euh, bokk nañu ci ministère ñu ngi ci fédération bi déjà mais am nga fédération bi après y a les ligues dans chaque euh, région am na ay ligues donc club yi tamit dañuy affilié wu ci au niveau des ligues des ligues régionales donc ñun sunu club Vélo Passion on est affilié à la ligue de Dakar ainsi de suite noonu la Dakar club région boo dem da nga fay fekk benn ligue. mais après loolu noonu yëpp c'est chapeauté par euh, euh, euh, la fédération sénégalaise de de vélo donc noonu la demee. waaw ces dernières années nag on a eu des soucis bon at fédération bi normalement ça devrait être le bureau devrait être renouvelé defuñu ko bo ba tey bon après ya y a le Covid 19 qui est passé par là. donc euh, compétition yi moom par rapport ak il euh, y dix ans euh, ce n'est plus la même chose donc il y a plus beaucoup de compétition xam nga mais ces temps yi gis nañ ni que affaire yi gars yi ñu ngi commencé waat di jugaat di créer ay compétition bon mais c'est des compétitions privées ay nit ñooy jël initiative mën naa ci citer ñu bëri da da organiser ay compétition de vélo bon c'est des passionnés du vélo en général organiser ay compétition ñu def ci ñu def ko quoi donc euh, ces temps-ci gis nañ ni que affaire yaa ngi commencé at gën a yëngu ñu ngi sentir benn engouement euh, pour le vélo quoi. quoi c'est-à-dire aujourd'hui dañu am sunu difficulté bu njëkk c'est la fédération donc euh, comme ni ma la ko waxee bureau bi dafa waroon dañ ko waroon renouveler déjà loolu amul. donc loolu bokk na rek tax li tax parce que tey jii nii bu fekkee bopp bopp vélo bi moo am problème. donc dafay feeñ ci yaram bi yëpp quoi donc loolu moom mooy sunu problème principal mais tey jii nii je pense que gars yi ñu ngi commencé di ko wax fu nekk à travers euh, euh, les médias et cetera donc euh, je pense que bu fekkee ministère bi jël na les choses en main dinañu renouveler bureau bi comme ça ñu commencé di participer waat ci kii parce que récemment Burkina organiser na xam nga yeneen dëkk yi ñoom ñëpp ñu ngi organiser mais on est un peu en arrière aussi et ça c'est un problème vraiment qu'il faut résoudre donc euh, je profite de l'occasion aussi pour saisir le ministre euh, bu fekkee mën na regrouper encore les acteurs du vélo comme ça ñu retrouver suñu place bi ñu amoon auparavant pour le vélo au niveau de l'Afrique au niveau mondial parce que am nañ ay grands champions ay boy yuy chaque jour mais compétition moo ñu manqué bon jafe-jafe yi mooy comme li ma wax rek cest à bopp bi bu feebaree yaram bi yëpp dafay feebar <laughs> donc euh, li ñu mën moom mooy ñun les passionnés du vélo ñu alerte les autorités compétentes pour ñu jàppale ñu ci vraiment pour que vélo bi retrouver sa place parce que ya a des grands xam nga am na ñoo xam te ne c'est des passionnés du vélo on a des vieux de quatre-vingt-quatre ans qui roulent avec nous tous les dimanches xam nga ñooñu c'est par passion mooy tax ñuy ñëw di jàppale xale yi donc mais aussi bu fekkee bopp bi dafa feebar comme ni ma ko waxee euh, dara du dem c'est ça le problème et on saisit aussi l'occasion pour alerte les autorités pour ñu jàppale ñu ci vraiment parce que gars yi bëgg nañu vélo bëgg nañu développer vélo bi encore davantage. maa ngi tudd Bekay Traoré. Euh, waaw pratiquement gagné naa plusieurs fois champion du Sénégal tour du Sénégal tamit gagné naa si ay étapes internationales naa France tamit gagné naa fa pratiquement gagné naa partout waaw euh, waaw euh, boo xoolee yeneen vélop fii doxoon na fi mais instant bi doxatul xanaa gars yi ñu xool ni ñu koy doxalee parce que tamit euh, comme moo fii bëri nay passionné te bëri na ñoo xamante ne saa yi dañ ko bëgg di ko def gars yi nañu gën say góorgóorlu ñu defar affaire yi mu dox parce que tamit euh, bu doxul tamit am nañu ay champion yoo xamante ne ñu ngi fii saa war a war war a war a def ay preuve te instant ba léegi mu mënuñu def preuve ay day am tamit gars yi kenn kenn mën a dem. gëj a euh, gëj a gëj a dox parce que affaire moom euh, affaire bi bu doxul moom xam nga compétition bu amul affaire bu amul xam nga gars yi mën a avancer Sénégal du mën a def ay preuve am fenn Sénégal parce que boo xoolee fi ay ndaanaan ay ndaanaan rek ñoo fi nekk ay ñoom ñoo fi nekk. xam nga tey instant bi tamit euh, wax dëgg fa yàlla nañu euh, nañu xoolaat affaire yi defaraat affaire yi affaire a commencé pour pour affaire yi mën a mën a avancer. waaw waaw waaw moom ñun moom duñ euh, jug doon duñ jug jug di wax chaque jour dañuy wax. xam nga di kaas pour pour affaire yi avancé parce que affaire bu avancé bu avancé avancé ñun ñëpp la avancé parce que loo xamante ne dañoo dem ba dañ ko bëgg loo bëgg moom sawaay kenn mënu la see kenn mun la see ah, loo man loo xam bëgg kenn mënu la see jëlee tamit nekk na sport boo xamante ne sport boo xamante ne dafa dafa laaj ay moyens laaj ay ay ay affaire parce que valeur dafa cher lépp lépp lépp lépp dafa cher kon nag gars yi nañuy gërgóorlu gën a liggéey parce que instant bi ah, commission gëñ naa am tamit gars yi waruñu gars yi tamit boo xool pratiquement dara amul kon nañu jéem a yokk affaire yi gën a yokk jom. merci déjà seen initiative bi ngeen jël ñëw xool euh, ñi nga xam te ne vélo intéressé na leen ñëw laaj leen c'est quoi lan mooy problème bi parce que vous avez déjà fait un constat euh, remarqué ngeen ni que participer tuñu au niveau international en Afrique et cetera et ça ça pose problème ngeen ñëw jéem a xool lan mooy feebar bi et ça c'est ñu ngi leen ci remercier bu baax et. On espère à partir euh, de cette interview que les autorités vont prendre les choses en main pour ñu faj feebar bi vraiment loolu la ñuy ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm.